jërë ngeen jëf mbokku internet Allô Sénégal saa su ne rek ñuy am mbégte ak contentement di leen di kattal ci seen actu dinette daal di ko door ak Amina Poté nañu envoyé audio sama jëkkër bëgg tas sama sëy moom nag loolu wax nee na rek dañoo envoyé jëkkëram ngir rek bëgg a tas sëyam ci ay audio yoo xam ne rek jot na ko recevoir yoo xam ne rek jëkkëram lañ ko doon envoyé moom nag ma ngay dikkaat di wax rek ni sëyam bi jaral na ko lu nekk waaye it dellu si waat moom Amina Poté eh, di wax rek ni eh, ki nga xamante ne rek mooy Soriba di ab waykat war nañoo def ay tànk jéego jëm ci moom mbokk artistes yi nga xamante ne ñoo fi nekk war nañ koo dem seeti waaye it eh, bu jaree sax ñu def collecté ab koppar goo xam ne rek méngoo naak la ñu koy laaj wala ñu xool yeneen voie yoo xamante ni war nañ caa war a mën a jaar ngir rek ñu daal di ko mën a relâché di jeex Kheucha ma ngay remercier waat Evenprod bu baax baax ci expérience bi nga xam ne rek daal ko def ci moom ñu daal di fàttali fàttali rek ni cœur brisé ca boppam moom moomee nekk na ab série boo xamante ne fi ñu tollu témbe ma nga war a rek lancé wu waat waaye it coow lay bëri loolu ca ñoom ñii di wax sax rek naan moom moomee di cœur brisé mooy ñooñee nga xam ne rek kenn du ci sol lu baax daanaka waaye it concours tat la ñuy rek daal di jaay leneen it daañu àddu jëm ci ba léegi ci Evenprod ak fin saison 1 jabété bété ñoom nag internet yooyu na ngay impressionné wu ci nombre de vi yi nga xamante ne rek daal dinañ ko nemmeeku ci série boobee di cœur brisé lu toll ci deux cent quatre-vingt-dix millions de vues la daal di am mu mel ne rek ñoom ñoo ñee ñi ngay amati ci contentement bu baax addu jëm ci leneen na alxayri ci diggante euh, ki nga xamante ne rek mooy mignonne les belles images de l'actrice mignonne et son mari mu mel ni nekkee démb addu woon nañu jëm ci di wax rek ni Clara daal di woon na ko defal ab fête avant goût ci mariage bi ngeen di gis nag ni mariage bi moo nekk noonu def seen i blanc di leen ñaanalaat leneen i daañu àddu jëm ca wàllum ki nga xamante ne rek mooy ñànku digganteem bébé Eva ak ki nga xamante ne mooy Adamo bi yoon nag dañ caa boole ki nga xam ne rek mooy Mouhamed Al Diop moom Adamo gannaaw menace yi nga xam ne rek menacé ne ko bébé Eva ba ngay dellu si waat di ko wax rek ni kii di Mouhamed Al Diop da laa def lu ko neex ba pare nag takku la bébé Eva nag am na ci ay wax yoo xam ne rek moom it daal dina ko répondre jëm ca àll Diop di wax ni rek sëy yàlla moo ko moom dafa sëy amul fu sëy tuddul yàlla fu mu ko tudd rek nit munu ko faa def donc nag ma nga yebale waat Adamo waaye it ñànko ñu daal di ko gis mu daal di def sorti di wax rek ni bébé Eva da koo tam dëmm gannaaw nag ba mu waxee loolu ñu ne lu tax mu wax loolu ndax nee na bébé Eva dani ko fii euh, nga xamante ne rek fa la yàddoo tëdd bu ay pexe nit jugoon man maa fay tëdd mu mel ni rek dani moom bébé Eva feebar bi nga xamante ni rek jot na seen xarit bi lee moom ñànku génnewu ci loxoom ñànku nag ma ngay ñaawlu li ni mel waaye it di leeralaat sénégalais yi loolee addu jëm ci leneen nga xamante ne rek mooy Wally Ballago Seck le golden boy de la musique sénégalaise ak Djiba point d'interrogation ñoom ñaan nag lu ñoo nar a sekk dañoo nar a génn clip dañoo nar a génn son wala lan moo nar a xew ci seenub diggante sénégalais yi rek ña nga samp blaat waaye it di xaar ci ci dévoile son bu bees bi nga xamante ne rek mooy rayal naa la teeñ rayal naa la teeñ nag bu bees bu yees boo xamante ni rek Titi Alavador moo ko rek daal di amal ñu di ko xaarandi it ci li nga xamante ni rek mooy toile bi leneen ni daañu addu jëm ca bii dina neex de maanaam cœur brisé ba tey saison bi nga xamante ni rek mooy saison 2 épisode 4 bande annonce ba nga xam ne rek daal dina génn mu mel ni rek ñu ngay kontaanaat bu baax rek di dalalaat ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñooy waa cœur brisé ci li nga xam ne mooy toile bi addu it daal daal di jëm ci leneen ba tey domination bi nga xam ne rek moo am ci diggante rappeur bi di Nit Doff ak kilifa mu mel ni rek seen nomination nekk na loo xam ni bëri na ay kaddu loolu ku ci mel ni euh, ki nga xam ne rek euh, mooy ma Madiambal Diagne àdduna ci ni gâteau ba nag dañ koy daal di partagé te gannaaw partage ba ba tey rek gâteau ba jeexul Jigi Diop moom nag mi ngi naan je victime euh, moom moomee de perçu de perséculation moom nag ma ngay dee adduwaat di wax ni naka rek tiis nga xamante ne rek moom moom mais jot nañ ko ko teg te ku ko ko teg nag du kenn ku dul régime bi nga xam ne rek moo fi génnee ndax moom daanaka dañ ko limogé woon turub limogé boo xamante ne dañ ko doon fayub salaire am ba tax nag moom moomee bañ ko waxee dafa war a def passation de service ci loxoy procureur la daal di mujjee ba ca loolee la koy doogo mën a def li nga xamante ne rek mooy Black Panther la sud africaine boo nee ñuy woowee ci tur Mimi Koni moom nag daal dina euh, décédé ñu di ko ñaanalaat yàlla fa mu jëm gënal ko foofu fi nga xam ne rek fa la daal di jugee addu jëm ci la collaboration entre euh, Blanche ak ki nga xam mooy Joseph euh, une fusion harmonieuse ngeen di ko gis en image ñaan nag seen po ndaje nekk loo xamante ni bombu la waaye it la daal di def addu it daal di jëm ci clim bi nga xam ne rek mooy clim Ousmane Sonko bi tombé en panne ki nga xamante ne rek mooy ab ministre bi nga xam ne ma nga fare ci ñoom nekkoon en pleine réunion ñu daal di ko woo ni ko nag ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko kilimam dafa rek daal di euh, yàqu li nga xam ne mooy réunion ba dem defari li nga xam ne mooy clim bi kookee nag di euh, directeur général de l' agence euh, d' exécution des travaux publics bi nga xam ne rek daal di quitter réunion en direct loolu nekk li nga xamante ne c'est à la une ñëpp rek di addu di ci jëm ba léegi rek Abdou Mbow di samp plaat jëm ci ki nga xam ne rek mooy Cheikh Tidiane Dieye waaye it nag dox ci seen diggante rek di Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna nag ma ngay rek wax du mbaw di ko mën ndax damaa nekk di gént am déet ci li nga xamante ne rek moom laa dégg nga di ko laaj yéen nag yor ngeen douze ans de pouvoir waaye nag amoo leen leen loo xamante ne rek def ngeen ko nit ñi samp laaj di leen ko laaj wala bu ñu leen ko laajee it doo leen ci joxe benn réponse donc du yow yaay nekk di laajte ay question tey leneen it daañu addu daal di ci jëm mu mel ni rek Mimi Touré ak ki nga xam ne mooy Mansour Faye nekk tey rek la ñu woon ca kanamu yoon mu mel ni rek Mimi Touré daane ñu jël lépp loo xamante ne rek pouvoir la daal di ko teg ci loxo mu mel ni rek bu nekkoon bataille la Mimi Touré na bataay ba mu mel ni it Mansour Faye rek ma ngay xamle ni moom moomee la ñu def nii teguñu ko ca yoon waaye it ñuy xam rek ni yoon yoonal daal di nañ ko rek nemmeekuwaat ci yoon bi li nga xamante ni tey jii nii moom la fi ñu président Diomaye Diakhar fay ak son. Euh, euh, premier ministre Ousmane Sonko di wax boobu ak léegi ba léegi rek ci wàllum politique euh, la ñuy rek daal di addondi ak ki nga xamante ni tey mooy euh, groupe de presse yi nga xamante ne rek euh, ñoom ñoo ne defoon nañu seen ndaje ndax nee nañu ba fi Ousmane Sonko nekkee ak léegi la groupe de presse yi euh, commencé am rek li nga xamante ni mooy am problème ay problème ñoom nag ña ngay dellu siwaat bu baax di rek ni nga nangu ki xoolaat yile décision yi nga xam ne rek daal dina ko tegal li nga xam ne ñooy groupe de presse yi gën leen a yombalal li nga xamante ne rek mooy liggéey bi ma tax gi jamara moom it daal dina addu jëm ci port de voile yi nga xam ne rek notre premier ministre Ousmane Sonko daal dina àddu woon jëm ca waaye nag moom a ngay ñaawlu liggéeyu imaam yeeg ñenn ci ay kilifa diine yi nga xam ne ak kilifa aada yi nga xam ne ni kenn warul woon rek li nga xam ne mooy histoire boobee di ko politiser waaye it kenn warul woon a toog en public di défendre ki nga xamante ni rek ni kenn ku ci nekk ak na nga ko interpellé te mu jugee ci ki nga xam ne rek mooy Mame Gueye uh, Jamra fii rek la ñuy daal di ndaar képpe suñu bloc d'information joxati leen dig daje ba ëllëg incha allah ci suñu yeneen i programme uh, jërë ngeen jëf